c'est professeur Mamadou Amadou directeur général de l'Institut de technologie alimentaire. mais... Ah non, il euh, euh, de cet atelier. Vous savez, l'ITA s'est toujours positionné dans le cadre de la valorisation de nos produits locaux. Et nous avons un slogan, consommer local, produire local. Et ce produit s'inscrit dans ces, cette mission puisqu'il s'agit de valoriser euh, toute la chaîne de valeur du lait avec le renforcement des capacités et initier un partenariat très fécond entre les acteurs nationaux et les partenaires étrangers, en particulier l'Université de Purdue de Georgia aux États-Unis, et ici à l'interne avec l'ISRA et euh, lex Donc ça me paraît extrêmement important qu'on insiste sur cette opportunité que nous offre nos produits pour impacter positivement sur notre balance commerciale. Vous savez, le Sénégal est un pays euh, d'éleveurs. Je suis bien placé pour le savoir et je suis convaincu que si nous arrivons à valoriser les produits de l'élevage, en particulier le lait, nous pourrons inverser la tendance des importations que nous faisons chaque année avec naturellement les devises que nous perdons. Alors, ceci euh, m'amène à dire que, de toute façon, l'État fait ce qu'il peut faire, mais c'est surtout le secteur privé, donc initier un partenariat privé-public qui peut nous aider, parce qu'au fond, les chercheurs ne font qu'initier, ne font que trouver, avoir des résultats, Mais pour valoriser ces résultats, il faut que ça soit euh, euh d'abord au niveau euh, des secteurs privés, parce que c'est le privé qui, qui développe, c'est L'État accompagne. Alors c'est pourquoi c'est un atelier extrêmement important et je salue ce partenariat avec les universités américaines et l'ISRA et lex Mais le mécanisme, c'est que, vous savez, les, les, universités, les centres de recherche trouvent, cherchent et trouvent des résultats, font des innovations. Mais il faut que ces innovations soient appropriées par les acteurs du développement, et en particulier le secteur privé. Parce que ce n'est que par ce biais-là que nous pourrons impacter positivement et d'abord le retour à la recherche, puisque la recherche ne se valorise que si ce qu'elle trouve Euh, et, valorise, euh, devient important et impacte sur euh, la vie des, des populations. Donc, j'insiste encore sur l'aspect extrêmement important de la, du partenariat entre le public et le privé, parce que c'est la voie la plus royale pour que nous puissions euh, avoir des résultats concrets dans le domaine du développement du lait et de la chaîne de valeur. partenaires le coup de pouce, d'abord, il faut que les chercheurs trouvent quelque chose. Et c'est trouvé. Il faut améliorer, bien sûr, parce que la recherche, c est, c est, elle est permanente. Il faut améliorer, il faut innover, mais c'est surtout euh, le transfert de ces résultats que nous avons qui peut impacter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que nous avons euh, de, des raisons euh, assez importantes de penser que si le lait aujourd'hui, euh, toute la chaîne de valeur hein, du lait est valorisée, ça reviendra à, impacter de façon positive sur notre balance commerciale. Si, euh, nous, valorisation c'est-à-dire pour que soow mi ñu mën ko jëriñoo loolu mooy baax ci suñu réew parce que am nañu bari nañu lee suñu ko defee ñu seet éleveurs yi ñu waxtaan ak partenaires yi surtout secteur privé public bi partenaire pour ñu bokk euh, ñu nga xam ne ñoo nekk ci euh, privé bi ñu nekk ci public bi ñu mun a àndandoo loolu day mun a yokk suñu koom-koom te dana dimbali réew mi ñu bañ a dem di jënd ci gannaaw réew euh, ay affaire soow nga xam ne vraiment mun nañu ko def si et c'est important mécanisme bi mooy suñu lu ñu xam nga lu ñu gëstu il faut que ñu ñu ñu jokkoo xam ne ñoo koy utiliser ñoo koy jëriñoo ñun suñu partenaire il faut lu ñuy def fii ci ITA ou bien à l'ISRA ñu mun ko indi éleveurs yi ou bien euh, le privé ñu xam ne ñuy commerçant ñu industriel yi ñu gis ko ñu jëriñu ñu jël ko def ko seen seen seen yëf pour que ñu mën a développer réew mi commerce Vous savez, le commerce mondial ne nous favorise jamais. Hein, vous savez, Et euh, il faut que nous, on puisse, par nos propres moyens, par notre propre production, nous imposer. Hein, diminuer de façon drastique ce que nous pouvons acheter là-bas en produisant à l'intérieur. Et donc le commerce mondial, c'est des intérêts. Vous savez, hein, les, comme on dit, les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Donc il faut qu'on puisse produire et nous avons les atouts nécessaires pour le faire. et en tout cas je sais que les autorités de l'état euh, ci xam naa ne euh, nguur mi mu ngi ci liggéey bu baax te gis naa lu muy def ci campagne yi ak éleveurs yi euh, xam naa ne daal de dama yaakaar ne su su yàlla àndee dana jox ay résultats yu baax. conservation waaw waaw loolu xam naa ko xam nga kooku yëpp il faut ñu développer rek xam chaîne de valeur la. xam naa ne xam nga fii am nañu ay association éleveur yu gars yu yu vraiment yu dëgër ñu liggéey bu baax te état bi mu ngi leen di dimbal xam nga nag euh, état mënul def yëpp état mënul def yëpp ci benn réew benn réew ci àdduna doo gis état mu def yëpp mënul donc il faut que ñu nga xam ne ñu nekk ci domaine boobu ñu àndandoo ak euh, l'état mun leen euh, gunge pour que ñoom ñu jël seen indépendance entre guillemets donc c'est ça qui loolu rek moo ñu mën a génni et euh, dama yaakaar ne incha allah kooku mun nañ ci mun nañ ci am euh, suñu lu ñu bugg parce que gis naa ne état bi mu ngi ci tàggu bu baax te éleveurs yi tamit ñu ngi ci ñu ci yoon boobu. Alors, bonjour, c'est Dr Younoussa Diallo. Je suis chargé de recherche à l'Institut de technologie alimentaire et en même temps le chef de la division contrôle qualité. Je coordonne en même temps également le projet EFSIL euh, dont nous venons de lancer euh, donc euh, le démarrage des activités. Alors ce projet EFSIL euh, porte sur la chaîne de valeur lait, notamment sur l'aspect euh, renforcement de la sécurité sanitaire des aliments qui va passer également par le partenariat public-privé Donc c'est un aspect important du, du projet. Euh, ce projet est également financé à hauteur donc, de 700 000 dollars euh, donc, euh, qui, donc pour les partenaires américains, mais également pour le Sénégal. Au Sénégal également, nous avons euh, des partenaires euh, techniques, notamment l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, euh, le Conseil national pour le développement de la nutrition, donc qui sont des partenaires importants. Mais également, nous avons d'autres partenaires qui vont venir en appui. C'est l'Association sénégalaise de normalisation, puisque quand on parle de sécurité sanitaire des aliments, il y aura un aspect qui important, euh, qui sera relatif à la réglementation. Nous avons également les universités, puisque dans un des objectifs du projet, il va falloir insister sur le volet recherche-formation et que ces de recherche également seront mis à la disposition Euh, des industriels, euh, donc des transformateurs locaux. Donc, alors, ce projet va un peu euh, donc insister sur euh, l'aspect sécurité sanitaire, puisque euh, on sait qu'il y a du beaucoup de lait dans la zone nord, mais que cette, cette transformation-là, la qualité quand même sanitaire il y a des choses à améliorer. Donc on va un peu insister sur cet aspect pour développer, pour donner aux consommateurs que nous sommes tous des produits donc, qui sont euh, sains et également nutritifs. Donc on va un insister, on va appuyer sur cet aspect-là. Non, on n'a pas encore donc les, les, statistiques, puisque également production, on va surtout insister sur, sur, sur, sur une partie, notamment donc euh, la production donc, de lait de vache. Donc euh, dans la zone nord, nous allons également cibler donc, certains acteurs. C'est sur que donc au Sénégal, il y a d'autres zones euh, qui produisent du lait, notamment dans la zone sud et dans la zone centre, mais pour le moment, ce projet va s'accentuer donc sur la zone nord. Le projet va durer 42 mois, trois ans et demi. bon projet bi ci wolof daal projet bi dafay wax ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy chaîne de valeur soow muy lait léegi chaîne de valeur soow xam nañ ne am na ay ñi nga xamante ne dañ ci euh, dañ koy dañ koy soppali muy transformateur yi am na ay ay distributeur am na aussi ay industriel ñi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi produire soow léegi ci soow bu ñu gis muy produit bi ak produit dérivé yi muy fromage yi ak muy yaawur yi et cetera gis nañ ne consommateur bi li ko ci yitteel mooy mu am produit yooyu en en quantité waaye produit yooyu nekk tamit loo xamante ne ni bu ko lekkee daanaka xel bi dafay daal di dal maanaam euh, bu ko lekkee daal euh, du am yenn doomu jàngoro yoo xam ne ni mën na am ci produit bi ndax xam ngeen ne soow produit bu sensible la te effectivement bu ko nit ki consommé rek euh, bu fekkente ne ni produit bi ni ñu ko defaree euh, àndut ak yenn bonne pratique yi euh, mën na andi ay problème mu santé te xam ngeen ne feebar yu bëri OMS 2015 bu mu defee estimation feebar yu bëri daanaka ci lekk lay bàyyeekoo moo tax loolu aussi vraiment dañuy encourager consommation production locale waaye tamit ñu bañ bàyyi ñu bàyyi xel wax bi nga xamante ne kenn ci penseurs yi doon na ko wax muy Socrate mu ne que ton aliment soit euh, ton remède et ton remède ton aliment maanaam euh, sa wërgu yaram na nga ko daal di seet ci li nga xamante moom ngay lekk waaye li ngay lekk tamit loolu na nekk loo xamante ne moom moo lay yokk wërgu yaram kon loolu nekk loo xamante ne lu am solo la.